ci salam gaa ya waa TV ziar nañ len bëgg nañ len waaw di wax eh, gaay rek nañ ñu yokkal abonné yi bés kolos bi comme niñ koy défé rek bu ko défé lepp lu waa bulum TV dugal rek waaw di ngeen bok ci ñi nga xamante ñokoy jot ñoo ziar yi ñëpp di beugé ñëpp di wax gaay fans yi namu nañ len namu nañ len trop waaw juste rek ñu ñëw pour jox len information. Euh, demi saison bi nga xamante ne tey jii nii bëri moom la ñu def am na ci yoo xamante ne jot nañu taataan seeni kàddu ba am nañu ci ñoom ay information waaw yooyu lañ leen fas yéene jox ñoo ngi siyaar ñëpp di béggee ñëpp waaw ñu tàmbalee ko ci ki nga xamante ne moom moo di rajaxe bu kër Fodé ndeysaan moom tamit def na saison bu baax def na saison bu baax am na li nga xamante ne moom moo di dix-huit finale waaw dix-huit finale yi mu am ci quatorze victoire waaw ci biir quatorze victoire yooyu waaw moom terrain gaal gi bokk na ci Kébé Ndourène ndeysaan ak ak Ndofane ndofaan Kaolack Toubacouta Ndorong Loog ndeysaan ak fi nga xamante ne moom moo di Daga Jaxate Gambul Mbelaka Diaw Jilor, Djilor Nduwor ganjay Tandabar waaw legi yoy dal moy yi nga xamantene tay ji ni nii rajaxe mom la jël waaw yi nga xamantene mom la perte muy Kalambas ak Calabas ak Fatick ak Sokone eh, vraiment Radiaye ñoo ngi lay encouragé bu baax a baax waaw di la wax ni bonne continuation à toi waaw ñu ñëw ci ki nga xamante ne moom moo di le roi Sané mu di Doudou Sané ndeysaan moom am na li nga xamante ne moom moo di set final waaw set final yi yëpp nag yàlla dafa dogal dafa jël set yi yëpp waaw jël na yëngale jël na terrain gaal gi jël na Fimela jël na Arène Nationale deux fois Adrien Senghor ak Mbam Loog yooyu mooy yi nga xamante ne euh, saison boobu la defagum waaw Doudou Sané yow aussi ñu ngi lay encouragé bu baax di la wax ne yaa ci yoon bi bonne continuation à toi l'enfant chéri de Diofior waaw ñu ñëwaat ci ki nga xamante ne nag moo di l'enfant chéri de Ndiaga ñaaw mu di ngañ seen ngañ seen ngañ seen am na sept drapeaux am douze finales waaw léegi je pense que cinq la perte finale yi mu jot a am Fimela ci la bokk nda Ndangaan Sambu ci la bokk Joal ci la bokk jël na Djilor jël na Palmarin ak Sow ak njaga cinq yooyu la jër mu perte fi nga xamante ne moom moo di Fimela terrain gaal gi ak Diofior waaw doomu njaga bi loolu la def waaw ñu jàll ci ki nga xamante ne nag moom moo di ndeysaan yàlla sinik ama jëlo an na ordinateur wala olay moo du fay yàlla sinik ndeysaan moom am na li nga xamante ne moom moo di treize final waaw perte kat yi nag ndeysaan daal di jël neuf yi kooku mooy ordinateur yàlla sinig ndeysaan moom moo jël iba mar diop jël tinrey gal gi deux fois jël na daga jël joal ak fi nga xamante ne moom moo di adrien singor jëlaat fi nga xamante ne moo di fimla jël jurub jël kaolak ndeysaan fi nga xamante ne aussi perte na foofu noonu rek ñu ñëw ci loolu terrain gaal gi perte na fofu deux fois biban njaafat yaakaar suma jumul yooyu mooy yi nga xamante ne la perte mooy yàlla sinig le champion d'Afrique ordinateur waaw ñu jàll ci ki nga xamante ne moom moo di Ibu yor tamit wax fa defoon na début saison bu baax mais yàlla daf mu amoon gàllankoor ci diggante bi Ibou Ndiaye ñu ngi lay ñaanal bon rétablissement à toi waaw yàlla na la yàlla delloo si ak jàmm waaw amoon na tuuti jafe-jafe nag mais terewul def na saison bu baax yi nga xamante ne moo di ibu njaay Diouf yor mu amoon huit final waaw jël ci sept perte ci benn. wa ah, ci biir huit final yooyu nag jël na fi terrain gal gi deux fois ndangaan eh, mooy ndangaan sa mu jël na foofu jël na palmarin ak yaayem jiloor ak saxela bu Ndiaye Diouf yor eh, set drapeau yooyu noonu moom la jël perte benn mooy fi nga xamante ne moom moo di njéejëng foofu la perte benn final kon bonne continuation yow tamit Ibou Ndiaye Diouf yor

jël na saa Ba jël na Gaage Chérif jël na Palado Kër Mbuki jël na fi nga xamante ne moo di Tamingue waaw trois drapeaux yi nga xamante ne nag moom la perte jël na fi nga xamante ne benn euh, njaanjaay olof foofu daf ko perte ak fatik ak Diofior yooyu yooyu la am yo xamantene 3 drapeau yi nga xamantene da ko perte aca bonne continuation a Pape Ngane Sox-Sox ba tay rek ñu ñëwaat euh ci ki nga xamantene mom modi Biram Bisin sen waaw Biram Bisin sen mom amna 10 final perte li nga xamantene modi 5 yi jël 5 yi 10 drapeau la am jël na sum jël na mbadaxun farabugu ak saas saas ñaar jël na fofu jël nju fi nga xamantene modi moo waaw mu perte 5 drapeau fi nga xamantene ne modi di pontu saareen dafa perte foofu saxela ak kocio ak lat mengi 5 final yoy la perte mom ki nga xamantene modi di biram bisin sen, ñu ñew ci ki nga xamantene aussi modi di monondos mom aussi def na saison bu baax machallah am na ci dix final ci biir dix final yooyu noonu moom Monados euh, jël na ci cinq drapo perte cinq Kër Mbay Diop jël na fa drapeau waa Patar jël na fa drapeau Kocoor Kocoor jël na fa drapeau Tabe jël na fa drapeau ak fi nga xamante ne moo di Jaxaw mu perte fi nga xamante ne moom moo di Dakar Parar Yëngale jaxaw ak Mbilaan yooyu la perte mooy cinq yooyu noonu waaw ba tey ñu ñëw ci ki nga xamante ne rek moom moo di Thiaka fay moom am na sept final waaw sept final la am am set défaite ci biir sept final yooyu sept sept défaite la fa am waaw léegi jël na fi nga xamante ne moom moo di adrin cinq or deux fois terrain gal gi yooyu la jël jël terrain gal gi euh, perte fi nga xamante ne moom moo di arène national deux fois adrin cinq or deux fois waaw kooku mooy caaka fay ñëw ci ki nga xamante ne aussi moom moo di buuru saalum touba kouta touba kouta onze final la am ci demi saison bi ndeysaan mu jël ci huit perte ci trois waaw ci huit ji mu jël Pointe Sarène jël na foofu noonu jël na Diamniadio Simal Toubacouta fayaako Kër Ñeen Mbuur Kawoon huit yooyu la jël mu perte fi nga xamante ne moom moo di Kaolack la ak Toubacouta waaw yooyu la perte macha allah buuru Saalum moom aussi def na saison bu baax ñëw ci ki nga xamante ne moom moo di Fambouda Sarr borom baasul la samoo ndeysaan moom am na dix final moom tamit li saison bi di naqari naqari yëpp am na dix final ci dix final yooyu euh, am na ci set drapeau perte ci trois jël na baasul deux fois jël na siwo caalaan Marlooj Toubacouta am dalaay set yooyu la jël mu perte fi nga xamante ne moo di caare loog kaarang ak jam ñaajo macha allah kooku mooy femme ñu ñëw nag ci ki nga xamante ne ndeysaan mooy daj dëpp gi <laughs> ñu gën ko xam ci njool zeyan borom bari ñi ndeysaan moom jël na fi li nga xamante ni moom moo di vingt deux final moom la def vingt deux final la def jël vingt yi ndeysaan perte li nga xamante ne moom moo di deux gàcce ngaalaama à Ndiol Géant le grand champion waaw Ndiol Géant jël na fi nga xamante ne moom moo di njongoon jël na fi nga xamante ne moo di sanga jël na fi nga xamante ne moo di ngasak munde mbam jël na fa deux fois cumbi sookoon jiloor njomborin xalambaas mbuuj njéejéng njéejéng jël na foofu faajaal jooral pecc simal Fatick deux fois mu jëlaat fi nga xamante ne moo di ngañ jël soowaan yooyu mooy euh, vingt finale yi nga xamante ne am na ko deux yi mu ngi ko perte fi nga xamante ne moo di Joal Mbin Farba yooyu la perte su ma juumul yaakaar naa ne Ndiol Géant yooyu la jël ndeysaan doomu Bargny bi ba tey gaa yi rek am na yu des mais nee nañu li duuf yëpp xëjul ci cin li dañuy tàggatoo ak yéen rekk ba suba incha allah ñu joxaat leen yeneen information yi nga xamante ne jot nañ leen fi am ñoo ngi jëfal ñëpp ñëpp ñëpp di leen bëggee di leen siyaar di leen wax abonné leen ngeen bës kolos bi fii lay xewee ci Mbouloum TV avec l'enfant chéri de mbulum tout droit sama gaay yi ñàkk abonné wóorut kon nañ abone rag muy abone tout droit